ñu ànd koog jëmm ju tedd ji mu ñëwaat ci bis bu tedd bi mu mel ni sun mbokkum taalibe sun mbokkum taalibe sun bàyyi taalibe mu doon bis boo xam ne bisu delloo njukkal lay doon suñu diggante ak yow ndax ci kàddu imam Baye Ba ñi ci la sosoo woon mu rafet lool ba baa ngi leen di li commencé fukki at bëriwut waaye mel na ne mu ne mooy gën nga yeesu. dëgg la. kon mu doon soo xamante ni ñu naan daal bépp ko war a fonk. tey nag fonk la nañ la. dëgg la bu sëñ bi defar ko baax. ndax ginnaaw ku nekk naan. naa xotti bu sa bàyyi seen. Mm-hmm. Mm-hmm. sañ sa yi. kon nan sax. lu ñu gën a waajal. bis beneen keneen bis. Euh, maa ngi ko wax. ndax lii ma sol nii sol sol ma ko leen. déedéet. seen xaar yi mais ñu ngi sol sol ko ñu ngi sol sol ko. moom daal te gis naa jigéen ñëpp noonu la ne. d'accord ak nga dëgg de waxal ma leen ko de jigéen ñi sol noonu de. loolu nag ak sa booree. la. ndax loo dogal ci moom ni jëmm ji doon am ku ko fonk amuñu si asam gëmuma ne rek keneen mën na ko def de ndax du ñàkk yàlla yow yàlla moom moo bindal moom waaye ku ko def nee rek ñu ñu def na ne loolu la yàlla dogal yow nag sa kàddu daaw mooy sa kàddu gu ren tey yàq yi ñu am sëñ bi fii ñu doon bu nu yàlla ko tëjee woon yàq yi tuuti na amaat ci kàddu boobu kon loolu mooy ëpp dëgg te am murit sifaatu saada xëy wax kon am murit bu dëggu motut ginnaaw ba nga namee ni daay wuti lan ngay ci lu yàlla ngërëma yàlla mooy muridu laay ku bëgg dem yàlla ku bëgg ngërëmal yàlla kon boo dëggu doogaam dëggu nag sa diggante ak ki nga yor sa bopp ak sa mbokk jaar bi diggante ak wóoree sëriñ bi sa diggante ku xam sëriñ bi rek da ngaa war a dëggu jëmale ci moom. ba lu la def war ngaa am xorom muñ ko waaye yow mu bokk tere demaat ñun nag ñu am si xaas sëriñ bi moo wax mu kenn ku nekk sa jëmm moo ma wuutu fa nga nekk. moo dem fi ni ak mbaaxam la waaye matiwul ko waaye kon xanaa lu góorgóorlu ba jël ko mati jéggi nag mooy li ko lu jàngal ñu fexe ba lu dugal si bopp yi ñu def ko suñu xol yi di ko def suñu xel yi fexe mu luy sew si suñu jëm yi ba ku ñu gis xam ne kii kat mat na sëriñ bi loolu dama moo gën a solo waaye ak tool bi ñëpp moom ñëpp la maa si dugg te leeral ko fi dem kenn ku nekk maay sa ndey. Mhm. maay sa baay di sa mag di sa nijaay di sa sëriñ loolu yow mu tëddee wér. bëriwul sëriñ su koy engagement di ko. déedéet déedéet. mooy sa baay ndax boo xewlee moo la ci. moo lay mooy sa ndax la may xel su sax xel boo ñëw ci mënoo ko am feneen ndax dañuy wax dëgg tam la ngay mooy sa lay nàmp si màndee ku la gis mooy sa baay mooy sa mooy sa nijaay ndax bu takk nga soxla nga tey mu wutu yow ba pare def sa la sa wax mooy sa xarit boo xewee bu ko jiitoo keneen ku fa ñëw maanaam amu ñëwit lay doon kon nag li fekk na ko ndax ku ma nga rek day bàyyi rek ñu jël loolu nga la nga def déedéet déedéet ak wëndu la am si ndey si ndey ak doomam yaay ji mën na koo amee doom ji doom ji mën na koo amee ndey ji baay ji mën na koo amee ki mu jur ki mu askanale ki mu askanale mën na koo amee baayam sàkkut nag bokkulee rek ma yo combat yoro déedéet ñu bokkulee rek déedéet yoro lu ma ko mën ma boo naa ko jox ceeb bu toll nii bi ko maanaam ceeb bi ma jox bu ko war naa ko ko jox mooy tax ma mu wér ma waaye bu fekkee joxuma ko ceeb dama ko yaral lu am ma soxla ko ko iñaane ko ko fo fu mu tuddee rek ak ceeb moo tax balaa fii ko nii mbokk la ak bàyyi mi ngi mel ni bokk farantin nii bu mu xëyee kii jaar benn kii jël solo léegi nag bu ma leen mooy ñi bokk bëgg-bëgg bokk lu ñu gëm te wujur boo gis rek dama dox bu sañoon ay njabootam bépp benn bopp la ñuy doon loolu rek moo def seen bis bëgg ñu baax bëgg ñu bennoo bëgg ñu nite bëgg ñu am dem liggéey bëgg ñu réussir suñu adduna si rawatina suñu àll bi te ñaar yëpp nañ ca noonu. wala tan sa nasibaka min ad-dunya loo ko doon koy def wa taqi mimma ataka dar al-akhirah loo ko doon koy def ndax mi ngi tudd loo yàlla mi ngi jaamuloo yàlla mi ngi wax loo mi ngi tey ta lu baax mu ne sëñ bi la bëgg kon bëgg nañu lu baax kon lan la kon lan la kon nanu góorgóorlu waat suñ diggante ak moom moom ngay yàlla la ma jox Sëriñ Tuubaa rek la ma wan loolu bi sa rafa rek la ma way doon leneen bokk suñ àdduna moo la si man ndax kenn ku ne la ma waxoon ne mel ni li nga conseil local moom moom mii moo ko dal ndax produit yi mu yor moo leen jëmb maanaam moo leen ji suuxatee ba ñenn ñi ami meññe kon sëñ Issa bi kenn nekk si ñun li jigéen ñi dafa doon def mooy suñu jur waaye leneen lu gën si yow moo si def léeg-léeg ñu doon ba weeg la. bu dee saxaaba moo ko dindi ci yow def sa def sa nataal yow rek am na ñoo xam ne tey jii coalition am kaa diri su kër fanaan fa duñ dem seen kër. duñ dem seen kër. lu tax li ñu nangu daal moo amul suñu kër. te yàlla rek la Serigne Touba rek la Cheikh Rafa rek la lu baax rek la amutum sax kon Baye Talla wax na ko yow royukaay nga kuy bëgg sëriñ bi rek mën na koo roy si yow kuy wax wax lu baax sa daayira bi mën na koo roy si yow waaye ku bëgg ñëpp na koo roy moo tax loo amagut na nga jàpp ne daa judd waaye lu ne mën nga continuer sa jikko may la ko sa pasaf may la ko sa dem may la ko sa bëgg may la ko te kon li tax ñu am wuri lépp nga def si yow billah bu jëfee doy na ko boo waxee doy na ko boo da nekkee sax am xelam dal boo loolu moo def état bi ndax moom moom mii kat suñu féete hmm. waroon na góorgóorlu nag ah, ah, am fu ñu fexe nag bu dee bu ay gor bu dee ay gor lan waroon na fexe ba fu ñu féete ñu ne du as bunt suñu ko féete dëgg la de fexe ba daal xelam ci suñ jëm te loolu moo lay jëriñ man de saa bu nga ci man loo xam ne yëpp nga fa bu ko tuddee si la te loolu mooy aw doxee Cheikh Matar fu mu nekk doy na ma ndax dafa ñëw dafa yàqe danaa fexe ba fu ma nekk si dafa tànnee ba. ma yàq loolu moo ci koy doon kon sëriñ bi wéral rek. amiin te yaa ngi fi rek. amiin amiin ndax nag yàlla jàngaloon ni ñu lépp du sens ñëpp. ca. baal ma mu bokkoon na la. sa jamonoy 90. day bëgg. lan daan wax baal yooyu lépp du sens ñëpp te boobu daaw bi. man nañu fukki yoon. ah xajul ci gën. be rek. boobu fu mu saana. yenn maanaam 10 heures rek fu mu saana wàcc 10 heures balaa 3 heures du matin ak di sëb yëg wàcc na la ci turu yàlla bu sell ak pas-pas bu sell ak riir bu méttee bi waaye ndekete bi dina ñëw ñu ba tey kat. du fi doon def wax na maam mii ni ko su yàggut rek kon ko jamono ñëw si kanam tuuti lu bare bare ñu leen gën dem te kenn ko dindi loola nag gis-gis la boo xam nit daa war a xalaat di ko jàng ba am lu ko ci yàlla may moo tax yenn yi ak ñenn ñi ak yenn melo yi day teg yow dañuy dara yàlla moo la koy a ko léegi. illa ahsantum ma ahsantum li anfusikum yow loolu rek la lu baax nga xam baaxoon yàlla may na te ba ma la liggéey. kon kan sooyu boo. te doo sooy. déedéet déedéet. li si kanam nag ku yàlla dimbali ba nga bokk ca am nga tawfeex. ci lay tax nga bokk ca nag mooy diglu ko te fonk li lay wax jafewul de jafewul de jafewul de diglu liggéey bàyyi tere rek. digle wut lu métti wax dëgg yàlla yomb te sañ nga noo jàpp jaay mhm. bu la neexee tëmb rëñ mhm. bu la neexee mayeen mhm. waaw ku sañ si yow loolu sañ nga laa bayloo ay tool sañ nga laa maayalloo waaye def lu ko jombale wét yàlla du ko sax am ngay juglu faf loolu su ma ko tànk demu waaye ba nga tànkee kursi yi tudd yàlla yii diine ñu fonk kenn ku nekk kese ma ko kon nanu fonk li ñu sëriñ bi wax tey fonk li ñu defal te gën a jàpp li mu def dafa ne moom li mu def noonu ñu fexe ba def ko lii rek moo la wax kon sëñ Ba ñu ngi lay sant di lay gërëm di lay daa am loo xam ne boo leen ko jéemul woon ñun da am problème. lu tax ñu par la mooy mën na yor bopp bi tiim daal di di naan si ndaa di naan si ndaal te teg ko si bopp bi pour ne comme bu nu yàlla dimbalee nga am njaboot boo xam ni ak sunu bëgg kenn bëgg la ñoom sunu xel day di gën a ñaax suñ njabootu ak suñ doomi bopp yi waa ñu ne dañuy def. màggal gii na ko commencé sëñ Abdou Karim nii ba si suuf si suuf sëriñ Dakar ji ji ji ndi ak ku ku tudd laa wax Baye Fall ak sa Baye ñoo ne borom Lamine Sène ak Bira. Lamine Sène doxin bi. loolu nag dafa am lu muy jàngale mooy gi nga ñaan yàlla ak basiir bi mel na ne xel mi ngi commencé di ñor yàlla nag bu leen di ki ngeen def. yàlla na fekkee seen taw. gis nga mbir mi kenn moom kenn jëndu wu kenn mbir mi du njëkkante bi ku fi mu toll yàgg yàgg. sama doom mën naa ñëw gën nga foofu dara pasal la muy yem kon mbir mi kenn ku bëgg na jëlu kenn dara laatalu kenn dara favorisul kenn bàyyi kenn ku nekk loo def yaa ku ne ni yaa ko jëf am kon sa ndaay moor sëñ la sant na leen gërëm na leen ci kenn nekk war ji da jëriñ bàyyi dem moom de seetlu na ni jëf na ndigal la ko def ba moom mii ñu jëriñ xelam dana ci ñëpp man sama dana ci ñëpp te démb bind nañu sama dana ci ñëpp ndax yaa ngi ko jëriñ kenn mu mat kon bu bëggee bëgg kon alhamdulilah rabbil alamin ñu waaj ak gàmm gi ndax gàmm gi ñëw mu ne màggal gi ñeent fooy juróom gàmm lañ ci teg kon ñu fay tëjee nii gàmm nii màggal gi mel gàmm gi mel nu ko raw te man nañu ko kon bu ñu leeralee tey noonu dox jëm ci gàmmu gi ba jekkal ko jekk boo xamante ni ngërëm li ñu yóbbu fii bu ndoogaa ne sa kanamu gàmmu ko comme xool xam ne lam defoon soo ko yàqu ndax man biir na ma ni bëgg na ci ñun. waaw mbégte moomu dañ ko yàq ba mu doogaat ak ñoom gàmmu. ci xool gën a bëgg ci ñun te dafay mi gën a bëgg ci ñun ñuy gën a nekk kon kàddu yi nii rek la gudd sant nañ ñëpp góor ak jigéen sant nañ mag ak ndaw képp kenn ku nekk foo féete dañuy jàpp ni rek yaa ko mel ne sëriñ bi liggéey bi defal na sëñ bi sant a leen gërëm na leen kàddu yi du gudd kàddu soññe la nii rek la kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wax naa ko ba noppi. léeg-léeg mi ngi dellu ak cantam ci borom bés bii ginnaaw ba mu sant seen tubaab mi ngi sant Baye Cheikh ñun ñun sant ko man. nee na sant boo xamante ni mbokk yi daal mi ngi bëgg ba yi bëgg ba. nee na ay sa tur mii daa joxe boppam ba mu kenn gisul dara sëñ bi rek la am. nee na bàyyi sëñ mi de aw doxinam li tax mu yéeme. bis yi ñu gën a fonk. nee na ñu ne bis yi ñu gën a fonk muy bis yi géej yi. nee na moom biso yi bu jotee baax day bàyyi te du këram ànd koog ñu ba mu jeex tànk boo ko jëlee am góor nee na lu toll ni bisu korite nee na ñëpp war a dem seen kër wóor ñi te moom kat nee na bàyyi woon na nga dem mais bàyyi ñëpp ñu war a

nee na loolu bi daal bi yëpp seetlu na ko. nee na taal kër añ sax passé daf ko def. ngi ñëwante njaboot gi ci kër ngi ñëwee te ñëwaat bàyyi sa sa kër gi. nee na ndax démb dëkk bépp. ku am ginaar sax toog nga si la nga ko sa nga am. nee na moom yor pare ak poche te demul këram te yóbbu leen dépassé te togguñu. nee na féetal nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nenek nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, pas-pas nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan, waaye nee ndax boo ko doon natt sa unité moom ku ñëw xas. nee na moom da dem nga taaloo ak gërëm. nee na loolu rëy na si moom lool te yëg na ko man man. waaye lépp lu waay di am daa fekk la nga ko jëndee jaral la ko. waaye nee na daa fekk lépp lu di am daa fekk la nga ko jëndee jaral la ko. ànd gi nga àndal noonu. nee na ànd gi nga àndal noonu. bëgg loo jagalal suñu yëf yi. bëgg loo jagalal suñu yëf yi. nee na loolu moo la jaral. nee na nga nee na nga bàyyi seen i ñëpp ginnaaw ko topp rek yëngu si ba mu baax. nee na kon boo jëmee ci sa a ànd ma ne moom la waxtaan bi yëpp. nan ko wax ni ne loolu gën a ko dégg kenn ku jox ko sa morom ba mu doy sëkk. waaye rawatina moom li nga xam ne sunu baay la. baay la si ñëpp. baay la si ñëpp. kon nañu kon nañu ko warmaal. nee na kon Baye Cheikh ñun gën a warmaal. nee ko bu yàgg. nee na mi ngi koy waxaat tey jii. mag ñi nekk ci biir daayira. nee bi ñëpp. yaay yeeg. leen gën a warmaal ci ñoo fuuf te teewul nga wàññi ko ànd ak ñoom kenn ñoo la ko fuuf te teewul da nga ko ànd ak ci. kon day bu nekkatee ci barab boo xam ne. nee na kon daal day ni bu nekkatee ci barab boo xam. barabu barabu kàttan la loo xam ni lu doo loo xam ni doolee koy def. ñu féete ñi nga xam ne ñoo féete ndaw. nee na na si taxaw ñoom ba ñoom bu yëkkati lu diis. buñ ko jéem nee na loolu kat buñ ko defee. dana ko neex lool. ndax nee na lu ko ndax nee na mag ñi lu leen di defal moom nga ko defal. nee na démb. nee na soxna Abdou Ndiaye mii. nee na mi koy seede ci man mii. ak ak seen Mohamed Diop mii. di wax rek bu bu daal di jotee nañu taxaw ba yóbbu ko këram. nee na loolu lu ko neex sama jëm ji rek a tax ñëpp ñëw. ndax moom bi képp ku ñëw nasu wala mu woote nga a tax mu ñëw. kenn defal ñenn ci ci ci waa na moom rek nga ko def waaye nag lu ko nit def it moom nga ko def. Hmm. <coughs> dajale seen moo bi. nee na beneen bi si la moo bi. fekk li ko rek fekk li waat rek. ak ngërëm li ak ndigal yi nee na bu nu waral def ci suñu biir. lépp bi bëgg ci lépp lu ab taal ci mbooloo mi bëgg sa mbokkum taal bi. bu ko jaay. nee na bu dee looy jaay sax na ko jaay. waaye nee na ci biir jaay ci bàyyi xel. na ci bàyyi xel ni sama mbokkum taal tam nee na tey bi nag naa dem ba yëg sëriñ bi de. waxoon naa ko jamono yooyu ni ni ni ñuy tuddee courtier. nee na waxoon na si jamono bi ne li ñuy tuddee courtier. nee na bu mu am si suñu diggante nii. kenn na kenn soxla dara. nga xam fi mu am. nga ni mën naa fexe ba nga jot si. fexe ba mu jote ko. noo xam am yow ci wàllu saa mooy. ñu gën a jaayoo téeméer nga feeñ nga xam ne mën na ko jox ci téeméer nga dem jóg jaayee téeméer ñaar ngir bëgg saa am daal yow mbokku daal yow sëñ bi nee na bu ñu ko defee ni suñu mbir. man man wutante yàlla ci suñu biir. nee na sëñ bi nee na nga wutante yàlla ci suñu biir. ak jëm Serigne Touba rek. loo xam ne boo ko amoon. loo xam ne nag moom boo bu ma ko amoon. te boo ko joxee. te bu ma ko ko joxee as mii. du ma wàññi dara. te yàlla fay la. ko joxoon ngir yàlla. nee boo ko ko joxatul ngir yàlla. boo ko dee jaayee. nee boo ko dee jaayee. maa ngi ci jaay. ci jaay. bul bul bul naxante ci kàddu. nee na bul naxante ci ay kàddu. kenn ci moom. nee na kenn ci moom. di wax ak sa mbokku taalibe. di wax ak sa mbokku taalibe. wuuteel li ngay wax nii. te mu wuuteel yow li ngay wax nii. naroo naroo. daa indi sëñ bi la nee na Pulaar rek. waaw wér. li ci mbokkum taalibe bi ndax mbokkum taalibe bi. nee na lépp loo xam ne yaa ngi ko yëngate sa mbokkum taalibe bi ci kàddu ak jëf. nee na ngay ngay ci sédd yàlla sama am. nee na sédd si yoon bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na sédd si Serigne Touba bi suñu tëriñ. nee na tudd si sédd si Serigne Assane Kane. nee na ñu ñëpp dana ko bàyyante. nee na bu ñu ko defee. nee na lépp loolu bëgg suñu diggante suñu borom. nee na incha allah taala suñu borom dina ko def. nee na am na ñoo xam ne moom seenu xel dal na si am xelam dal na ci moom mukk mukk xam duñu ko def. koo ci xam ne mos nga cee juum ci loolu. waaye koo xam ne mos ngaa juum ci loolu. na nga ci bàyyi xel. mais daa na nga ci bàyyi xel tuuti. naa koy sant. mais loolu day ndigal la loo xam ni ndigalu bés. من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم الله دين